di la siyaare di la sukkal di la raamal di la gën a bëgg saa su ne saa su ne yaa ngi suñu xol fees ko del tax nga ba jàmbatuñu dara amuñu lenn lu nga xam ne ñu koy gis feneen di ko ñee keneen moo ñuy gis ñu ñëw waaye ñun ñeewuñu kenn sunu xol sedd na ci yow sunu xol sedd na ci yow suñu xol sedd na ci yow ñëw nañu nag tey jii fas yéene sanante gaw ay kàddu ay kàddu cant ay kàddu ngërëm ay kàddu jébbal gu bees tàq ay kàddu jaayante tey day li jiitu ci suñu wax mooy mbooloo mii yëpp sëñ Moussa Mbacke Mouhamed moo nekk seen biir xol xol ko ci nekk li ciy tëf tëfi guddi bëccëg subaa ngoon yow mii la kon mbooloo mi ay jullit ñoo fi ne jullit nag armam maanaam ngànnaayam weesuwul ñaan ñaan moom suñu borom da ko fonk lokk ci jullit lool ci jullit ginnaaw suñu xol bii sëñ Moussa Mbacke mi moo ci ne nanu maase ñun ñëpp ñaanal ko mu yàgg fi lool tànd ñun ñëpp nañ ko wax sëñ Moussa Mbacke Mohamed nañ ko wax suñu làmmiñ tudd ko tey bisum ñaan la sëñ Moussa Mbacke Mohamed yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jërë ngeen jëf sëñ bi de wax dëgg yàlla bu fekkoon mën nga ñu bett dañaan bett te nga ñu waaye lu ñu gisul ci yow rek ñu ngi séntu leneen lu ñu gis xam nañ ne ngaa jox jox ñu waaye wóor nañu ñun lu nu bugg li fekk ñu ngi sa liggéey bii dañ koy awee nu koy sunu jot dañ koy amee nu kawee sunu jot la ñuy amee ñun ñëpp suñu xool sedd na léegi waa njaareem def nañu nañ daan def ganale nañ ñu toppatoo nañ ñu sëñ Baaraam mu nga fa woon ca Salba président section Thiès mu nga fa woon président section Dakar mu nga fa woon président section Kaolack mu nga fa woon ñeenti président section ñu nga fa ak ñaari représentant sëñ Moussa Mbacke Mohamed muy bu njaareem ak bu ak bu bu Kaolack ànd nañu ak waa waa cees Ibra Sey ak li wër Thiès waa Tivaouane ñoo ñëpp ñëw nañ ci ñëw nañ ci ci convoi bi convoi bii dafa war nga ñu daaw dimbali ñu woon ne daaw ñu am convoi boo xamante ni ñun jàppoon nañ ni convoi mënta ëpp booba waaye ni waañ mel ci kër convoi ren bii bu daaw ba noonu la mel ci moom lépp ci seen dimbal ndax yow de ku lay liggéeyal lu mu bëgg li ñuy wax rek man man du ma wax sëñ Mbaye Jaxate dama wax keneen man kii su ma ko xoolee sama xol day fees tey laa ko xool mu wóor ma ni mag ñu doon wax naan ki ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj. billaahi wallaahi dama ko gis xam ni loola kii moo tax ñu koy wax ko ànd ak ki ñu àndal lu ko neex laaj mu wëpp loolu maanaam dama lay xool rek yow sama xel dama lay xool di gis mag waxi mag yi mag ñooñu li ñu wax sëñ Cheikh Mbacke góor moo ko leen ñu ànd ak seex mi ngi la dab juin er mille 2005 bi sëñ bi wàccee booba la booba la ñëpp war a maase topp sa ginnaaw ñëpp waaye nag suñu boob mooy dogal li muy dogal am na ñoo xam ne bi faaw ñu am faaw am ñu dem léegi. ñu ngi ànd ak sañ jiili ana kër sëñ jiili Mbàkke sëñ jiili Mbàkke mu sëñ Cheikh Mbàkke moom sëñ Cheikh Mbàkke Sall sëñ Mbàkke Sallum wala re sëñ Bara la da daan def caaro yi ak waa Taïf caaro yi saa yi ñu amee manifestation mu nekk fa sëñ Bara bu amee kenn ku ñu war a tudd caaro yi léegi dootul dem daan ko ko yaa nga fa demal ma fa léegi kon moom dina fa nekk ci sa tur di fa liggéeyal sëñ Tuubaa soxna yi nee nañu naa leen wax ni na nga dégg ko waxoon naa la daaw nag sëñ bi loolu damay jóg tuuti sax sëñ bi il faut nga sot tuuti tuuti fa nga ñu kenn dabatuñu waaye nañu nekk ci kanamu ñëpp xale yii yow rek lañ gis nga fu mu nekk nii waa social ak waa organisation dañoo wax ni paas bi dafa nekk jamono nawet mën naa metti léegi nu ñuy def mooy comme paas bi su nekkoon junni ñu ni koy ñëw indi deux mille cinq cent bu dee quatre mille ñu ne indi ku nekk na indi na indi deux mille nga xam ne ñu léegi si des ñëpp ñoo dem ci ay njóogu faal ñoom ay sëriñ faal bàyyiwuñu kenn kuñ dem nga jox ak sës tuut ñu ñu transporté ci nit ñi loolu moo tax bus yi fees del macha allah soxna Oulimata Kandji nee na naa la wax ni tey ñoom ñu ngi arafat ñoom ña jigéen ñee du yéen a ko wax yéen ne ah nee nañ nee na ñu ngi arafat nee ndax arafat lañ fay am gëm nañ ñu tey nañ ko am fii fii sax lañ fiy am amul fen ndax sëñ Moussa lu mu wax fee ku ñu nangul la fii nag ku fi ñëw fanaan fii la ñu wax. Cheikh Moustapha du lambatu Cheikh Moustapha Bassirou Serigne Cheikh Dia Serigne Khadim Gueye ak mbooleem njabootug Serigne bi Cheikh Moustapha yàlla na nga fi yàgg noo ngi lay siyaar ci turu Fissel Mbadane gépp te di la ñaanal yàlla mu yokk fan wi lool te mu ànd ak wér ànd ak dal ak tal yàlla na yàlla musal la ci cat musal la ci làmmiñ musal la ci bët bu aay musal na ci looleem luy yàqu lu waaye jéem jëme ci yow lu dut lu baax yàlla na ko ko suñ borom dëpp da nga mucc ca loola ak àndal mbàkke noo ngi lay siyaar te di la ndokkeel tey fetliwaat sunu diggante ak yow di la seereel ne giñ naa ci say jëm jii ne bëccëgu làmbaay ba bu taxawoon fii tey ku gëm sëriñ bi tey ñu rey la bii boppam séeréer de du ñibbi te waat naa ci sa jëm ji ne fii ma toog nga ne boppam séeréer laa soxla bii du ñibbi ak yi ma àndal séeréer yi mbaa daan yaa nga nële góor ak jigéen mag ak yow yow rek la ñuy déglu ndax danga noo defal loo xam ne li kenn nattablu ko nu teg ci suñu bët ba mu fay ñëw ñeenti teen a nga fa yoo xam ne benn mënee su koo naan daa xat ma ne ko mbàkke damaa bëgg nga ñaan xiiwal gi dox ndox mi wala ngaan ci biir dëkk bi ba kër gu ne am ba fii nga toog noonee ma ko waxe la ko suñ borom defee tournée ba ba mu matee ca Banjul la 30 keroog la ndox ma dugg si tey saango kër goo dugg robinaa nga ca biir di wala ngaan kon Mbàkke li nu bëgg ci yow yal nañu ko suñu borom defal saa yi nu toogee fii ne téeméeri at yu dem yu ànd ak bëreet dem rek atam ren nii bokku ci ba ca kanam la nuy limbaale te noo bëgg saa yi ñu toogee fa ngir ceeŋ saa yu ne bëreet rek mën a dem. waxaluma kaw Kaolack rek damay wax képp koo xamante ni ba keroog ba Serigne Moustapha toogee fii ci kaw Serigne Baara toog Serigne Fallou toog mu xam la ni ay baawul xaddim li nu seeti diinil xawim soxna ajaratu maam bu sa toog na xam ni maa ko sos. ci laa nekk te maa ko digle te koo xam ne maay sa bunt ci Serigne Touba moom laa la digal kuy samay kuy sa bunt ci Serigne Touba te digal la ko boo ci nekkee nekk nga ci sama digal boo ci nekkul la nga nekk yaa ca nekk waaye man lii laa nekk ci laa digle yaa ma ko waxoon yaa ñu ko waxoon fii ci kaw kon ñooñu laay waxal waaw waa ahibaawul xadim li nu sa diinul xawim ñoon laa fiy waxal waaye nag bay ci sa wequ tàng section Kaolack fa la ma yàlla boole te ma nangu ko te ànd ak ñoom ci àndin wu rafet Alaaji Taala Touré moo ko jiite mooy président section ba mi ngi nii toog sëñ Tuubaa moo wax ne taalib yëpp la doon waxal taalib yëpp adduna ko maanaam ba adduna sosoo bi sëñ Tuubaa ñëwee ba adduna tukki am message la joxe boo xam ne taalib yëpp la ko boole te mooy la tafaalu shay'an bi gayri izni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni sëñ Tuubaa nee na yéen taalib yi maa ngi digal lu ngeen di defat na ngeen ci diglu ndigal bañ jox leen ndigal ngeen ne ci ndax dafa bokk ci sarti ñu nangul la li ngay liggéey nga nekk ba am ndigal dafa bokk ci sarti ñu nangul la nga nekk ba am ndigal loolu sëñ Tuubaa ko wax loolu nag nee na kon na seen xel dal bu baax ndax liggéey bii nee na wax na ko waxati ko waxati ko kon nee na ndigal lii mu digle di ahibaul xadim li nusrati diini la xawit te mu yëg bu wér ni kenn ku ne yaa ngi koy damm sa bopp la nga la nga man ak la nga mënul yaa ngi ciy def bu leen sikk sàkk ci ne day kenn ku ne boo taayalee sa loxo sa rëddi baaraam yi ni mu la leer wallaahi asim noonu la ko mbir yooyu lu gën a leer mbir yooyu la ko gën leer li nga nekk ci liggéey ak foo mën a ne ak loo sori sori ak loo ruqi ruqi boo nee ci ndigal bu baax te dox ci te xam ne mi ngi yeesalaat ndigal góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn gis na jëf yi bu baax a baax leneen la ca des nag nee na dañuy fàttali rek fàttali goo xëy neen ci boppam la ko tàmbalee ndax dañuy faral di wax ne lépp loo xam ne moom mi digle na ko nun taalibe mi kenn ku nekk ci xoolal kenn ku ne xoolal loo loo phrase boo dégg loo dégg Cheikh Moussa wax rek fi nga toog bala ngaa dem xoolal def na ko bu yàgg tama nga ci te moo la ci nag loolu nag mooy seexu murab bi dégg dëgg seexu murab joxuñu yoon wa ne ma nga ne wëlbatiku waaye daf caa dox nekk ca kon lépp lu mu digle ma nga ca te man ca lool kon boppam la ci jiital kon neex naa àndal ndax ku xam yoon wi te ñeme ci tey dem bu nee la kaay ma yóbbaale la war ngaa sant baax a te moom xam na yoon ñu ñeme na ci te mi ngi dem itam te kenn nu mënta mu àgg fa mu jëme kon nee na mi ngi leen di digal di digal képp kuy dégg suñu ñu sax ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla kat doon na loo xam ne mënu fi indi moo na fi bàyyi bëgg na ko fonk lool wax naa ba tey ci ay mu wax na ko ne ku bëgg doon ab dànn amin te la ko sëriñ moo waxat amin ñoom ñooñee ëmb bañ yoroon ñu tax ñu teg ko ci loxoom kon ëmb boobee dara du ko rax ñu xam loolu sax ci jàmm yàlla bu baax dimbalante sëñ bi dimbalante gi ñor na ko lool xam na ne ñoo ci de waaye nee nañ nañ ko gën a fonkat buñ delloo ci mbooloo yi ku mat a ku ne nañ ko dimbali ca ca ca fan nag dañ ko war a dimbali ak la mu laaj ci wàllu ndimbal nee na nag lu xam ne kenn ku nekk ci noonu bi ngay gane adduna suñu borom waaye nag juróomi mbir yoo xam ne dañ laa gàttal waaye nag mu toftal ci juróomi mbir yoo xam ne ñoo lay yi di gàttal ni nga leen di bàyyee xel nee na ngay bàyyee xel juróomi yi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw yooyu nag di la gunge juróom yi di mooy yem ba ca jiitu mooy dalay jox kat ñeenteel ba mu mel fiir maanaam temps boo mën a defe dara juróomeel ba sa bakkan bii mu may ko mu dund ne la aj suñu borom ne la juróomi ni yoo xam ne moom mën nay soog ma jox sallallahu alayhi wa sallam nag dikkaat ci hadis andi juróom yooyu nag wax ne leen koy bàyyi xel ndax bu ci ne dara da ca jox sëñ Tuubaa war na ko ca tasawdu sixa waxtanimu xamsan xubayl alxamsi kama bihi amara xayrul insi juróom yaa mu wax ne sa ndaw gi la yàlla jox kattan gii mënul jox comme ni ko Cheikh Moussa Diop léegi daal di waa ne noo ngi amul wér noo ngi no nga am kattan na nga fexe ba kattan googu la suñu jox ak sa ndaw gi nanga xam ne ak ak mag a ngi ñëw ak mag ak mag a ngi ñëw te boobaa la nga mën a duutoo ko man kon kon tawféex yi doonu ndaw am nga ko waaye li koy gunge mooy ak mag nga tënk ñu te la nga a ci ndaw dootoo ko man bi ngay doone mag kon a nga gaaw góor góorlu ci jamono yi la saa mën joxe ak ndaw loolu ci mën ci lu baax balaa ak mag ñu beneen bi ci def mooy wér gi la suñu borom jox da koo bootal ak wéré ndax ku ne xam na ne wér ak wéré bi boo demee ci hôpital yi da ngay jàpp ne kenn kenn jóg kon yaar yooyu am kon boo sëppee say tànk ni alhamdulilah di yëg yëgoo dara gaawal loo mën ci lu baax nga gaaw def ko ci wiir googee te xam ne suñu borom da koy am la te ba ko soobee mu teg ci ak wérin te xamu nu koy def te yàlla daa bari coobar beneen bi ci def mooy koom-koom mi la suñu borom jox mu toll ak yow ak lu mën a dox fekk caa jël yéen yàlla taxawal ci ëtt yi taxawal ci day taxawal ci dimbali jàmm yàlla yi ak loolu lu mu mën a toll boo xoolee nag des koo xam ne yaa ko xamee boo ci def ca lu baax ndax suñu borom ba ko soobee mu fabaat loola ci nekk ndax loolu coobareem te noo xam lu yéeme yéeme la xam ne ko kii maa ne la waaye dama dama dama def bañ naan ndey sax te loolu du waaye day coobare yàlla li nga xam ne moo la am bu ko neexee kon bu nee la am na nga gaaw góorgóorlu ba def ca la nga ca beneen bi ci des mooy pièce bi mu la may nga am as njot mën a jóg dem mën a wax mën a tëdd mën a lépp bu boobaa pièce boobu ak temps boobu gaaw a buur ci temps ba def ci li nga war a def balaa xat-xat yi ñëw balaa xat-xat yi ñëw xat-xati jamono ngi fi yu bari yoo xam ne mën naa dem ba tënk la bala nga bëgg a def lépp doo ko mën a def kon foo amee occasion lu néew néew rek ci am pièce rek gaawal rek propre loolu ci def ca lañ ca war a def ndax sëñ daa ne leen lu ngeen di waajale bis pénc ba am ca ñëw ne bëri na ko day mbàcc nañ koy waajale mooy saa buñ xëyee jàpp na duñ yem suñu yem jàpp na duñ fanaan suñ mu ne bismillah mat na ko rek waaye man ahmadu ni ma koy waajale wóote naa ak yéen ni ngeen koy waajale man ahmadu ni ma koy waajale mooy noy yi bu rek ma jàpp ne bu génnaat ma gaaw loo ci man def balaa bu génnaat yi di sama njëriñ su ko xoolal boo ko far noy yi bu damay jàpp ne du génnaat ma gaaw lu ma ci mën ci diggante boobu def moom diggante noyyi ak morom ja ci la daan liggéeyal yàlla yàlla na ko yàlla fay xëy na jësa kon sëñ bi neen loolu moo tax waxtu bi lu am solo waaye dundit mi ngi fi te am na la ci topp mooy adduna daa mu yem te ku nekk adduna rek saabara am na fu mu la yàlla faxal bu fa accès bu boobaa bu la soxlaa daf lay fab kon nag nekk di ci adduna di dund na ko def moo moom itam jumtukaay boo xam ne da nga ci fas kon yii yu am solo la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la sallallahu alayhi wa sallam am na ko Sëriñ Tuubaa am na ko téere bii ñu wax ne saw di sixaar di ko dénk ndaw yi di ko dénk jigéen ñi kon nag nan maas taloo lépp boo boo ko kon nag nee na nan nan nan nan nan góorgóorluwaat fekk war tax saay bëggante soppante wóolante doyloon te sax li mu digal te yem ci te li day yem kenn du ko xam fii ko karfati fii ci àdduna bi yëpp xam ko jullit ñëpp kon tey li dalee fii ba Ndakaar waaw àll bi sax na bu subaa nañ ko waajal ci xasaay bi ci alquran bi ñu daje fii ànd ko ak moom sëñ bi du saa dañu daal digle alquran daanaka digle xasida yoo xam ne sëñ bi ne mi ngi ma koy fàttali muy jës ko xoloo ma wax ko naafeq mu xaddamaatul am daal xasida ak mii nii Cheikh Moustapha fii da teg ko ci kanamam di ko jàng moog sëñ bi Samba ñu daa àndal jumaa jii ñeenti xibla yi genn xibla ga ci penk waaye jësu moo fa daa toog di jàng wetu ndeyjoor ko waa Mawar bu nekk wetu sowu gi waa Muqaddima nekk wetu wetu yii di wetu gànnaar waa mii nii nekk waa alxuraan ji mu séddal leen ci biir jumaa ji ci biir barabu sëñ Tuubaa ak mihrab yi jullee ñu ne ci kaamil ba bët set bu ñu noddee ba ba da bu ma saan ne nag danaa wax ne lool yi ñuy wax saabu day ni mel ci tilim nu ko rob la bis bii mel ci ku mu fanaan bu bët set bu la neexee bay bu yënul nga xam ne sën nga wecc ay bàkkaar loolu rek jar nañu ci dëkk kon nee nañ ko fonkaat ci ci alxuraan bi fonk ko ci ko ci xasida yi dundal guddi gi ba bët set ndax gaa yu baax xam ne Cheikh Moussa wax na ne gaa yu baax yi doon gunge Sëñ Tuubaa ñu di ko andi nga xam ne ñoo ko gunge ba ci jumaa ji bu bis boobee delsee ñoom ñooñu dañuy ñëwaat ci guddi solo ci mbedd yi solo ci kër yi képp ku mu dajal defal la tawfiix defal yërmaande joo xam ne du tàqali ko ak yow loolu nag lu gën a wér la sëñ Abdou Samb wax bu suba la te suba ci guddi la ñuy wàcc kon kenn ku nekk na nga waajal sa bopp na nga waajal sa bopp bu baax a baax bu ëllëgee ngir fas yéene manque yiw yooyu yëpp mi ngi sant ñëpp nag di leen gërëm di xam ne seen pas-pas ci moom yéen sa xamu leen dañuy jéem rek waaye moom mi moo xam dëgg-dëgg pas-pas yi mu duyeel moom moo ko xam waaye rek ni mu ko di waxee ndax mu toog ba yàgg mu woo ay mag ñu bari leen mu woo kenn ci bëgg néeg yi ne ko ak ginnaaw suba fekk fan sàngam fii mu bu fi kenn jàll kooku dab nit ñi ne leen tëdd ci fii moom suba ak la ci topp la na ngeen toog déglu ko waaye fii bu fi kenn ñi xëy ñëwaat sëñ bi déglu ñu wax mu ne ñu ne ko am ah mbooloo mi ñëw xanaa daw xanaa dañu leen wax li ma leen ñu ne ko ah kay mbàcc mu ne dellu wax leen ne leen dama leen woon boobu kenn fekk ñu dellu waxaat ne loolu nit ñi jóg tëkku saan jot ñu del si wax mu génnaat waxaat loolu kenn ci mag ñu baax na ko am mbàcc ah moom de ñu ngi nii rek xanaa dëgg la rek wax na ne que bi bi ñu wax loolu sëñ bi def na mu yëkkati ñaar loxo ba ci kaw mu ràbbali baaraam yi dana alhamdulilah rabbil alamin ndax suñ borom maral la maa mbir yi bu mënuñ ma bañ rek waaye mu loolee mooy yii suñ nan xam ne suñu borom maral nañu ak moom la duñ ko bàyyi te duñ bàyyi loolee moo fi nekk ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom kat maral na maa ngi ñu moos ba ndax mënatuñ maa bàyyi rek loolu da ngeen defee ne foofu la yem mooy dox ba léegi ku ci yàlla dugal war ngaa sant yàlla loolu waa fi nekk ba léegi kon na ñëpp maa fi ñaan Cheikh Moustapha Mohamed nii ne bu kenn mu sëgg billaay ko ñaanee suñu borom def buñ ko ñaanee suñu borom def ko de aw ba jur may sikk na ko ñëpp def mu seen wird wi gën a mag ci seen wird mooy na ko saafara bay ba mu soxla te wér wér ba ne rek ba li bëgg léegi lépp mu liggéey te nun nag moom nan ko bàyyi suñu bopp rek nan ko bàyyi suñu bopp rek kenn koy dee sa laaw fa nga nekk la war ci yow ci sa mbuus dana ko duy ba mu fees boo doon amul benn wér nan nekk ci ndigal li te bàyyi ko ak suñu bopp xam naa daal nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp soxna yi nag danaa ci dellusiwaat ndax day faral di wax léeg-léeg ci yu bari ne gis sa ne ñaare fi fi mbooloo siyaaree bisu tey bii yu dul bisu tey bi li ci ëpp jëwriñ yi daañu ko seere daañu ko seereel seereel su mag ci soxna yi ci jigéen kon nag loolu na xam ne dégg na ko bu baax mi ngi leen di ñaanal yéen itam ñaan xaas kenn ku ne fu muy liggéeyal yàlla yàlla ko sama borom defal barke barke bu yaatu defal ko fa xéewal defal ko ndaw ñi defal ko mag ñi defal ko képp koo ne bëgg nga lu mi ngi ñaanal itam nag jullit yépp nii mu ñaanal nag ñun ñëpp xam ne jullit yëpp lay ñaan ñëpp la fàggu nun nag dan caaraw ndax noo nekk fi moom waaye kepparu lislaam yëpp la dara nee na mi ngi ñaanal jullit yëpp kon na ñëpp maase taalal seeni loxo te taatal ndab yi te xam ne insha allahu dana ko duy ba mu fees dell ndax sëñ Tuubaa moo waxoon ne zuru fi mahan wajjatuha xablu lin nabi wa kullan bi ma faaxal muna saara yëpp ësu ndab yi daal ba mu ne ma waaw góor ne ma taalal sa ndab ba ma ko taalalee duy na ko kon fi fu waay taalalal solo te fasaaleel koo am ku nekk ci kaw suuf ak ku ne ci biir suuf ñoo ci yem ñoo ci yem na ñëpp paas taalal loxo yi mu su sunu aajo faj ñun ñëpp ba suba ak jàmm nag li mu wax nu maas dellusiwaat ci bar bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillah